da nga gis ku jàng yaasin li maa yeneen yenentu bi soxla boo ko jàng rek mu faju nga gis ku man benn waaye nee na ma jàng naa trois cent treize yaasin sama soxla gën a dëgër ma ne ko du ci yaasin ci sa xol bi la gis nga nit dina laa biir ba ku mu tiim faj la yàlla suturaal ko mu wér am na ñoo xam ne lu ñu ñaan mu nangu ndax xol bu rafet senegal jàng jànguñ fi woon ay kaamil ci jamono Ousseynou bi ay million ay million ñu jàngal ko Karim Karim Wade ci Ousseynou bi waaye fii la leen fekk yi nitam ah kaamil yu kenn xamul nu mu toll kaamil yi fu mu jël Karim rëbës ba mu fa jógee Qatar xam ne du kaamilu yàlla kaamil bi yàlla wax kenn du ko jàngal nit muy am problème jànguñu kaamilu yàlla yéene nag laay wax man suñu jàngoon kaamilu yàlla xajul ci àdduna bi ay million kaamil parce que dangaa dégg millions yi ñuy séddale nga ñëw jël wàcc kooku du kaamilu yàlla kaamilu intérêt la yàlla du intervenir ci intérêt maa ngi koy wax rek ci football bi mës nga gis match si xaritoo amical ñu ni la bul woor xaritoo doo xaritoo yàlla match si xaritoo boo ndogoo demal football ko stade baa ngi projecteurs yi woor leen ba jant bi soo ngeen ndogu bu minuwee ngeen def seen mat si xaritoo fo rek la foo du taxa dog koor bàkkaara nga ca kaafaara nga ca daganul suñ demoon coupe du monde sax duñ leen ko may FIFA la ñuy wax ne leen ñiy jullit nañ may ñu football guddi ndax weeru koor la mat si daje yow lii mag mondial ñëwagul mat si xaritoo ñooy len bu leen